bismillah yéen muridi Sénégal man Abdoulaye Lahat maa leen di jaal bismillah yéen muridi Sénégal man Abdoulaye leen di jaal sang bu mag ba féete woon Mbakke Bawal Cheikh Modou Astou Mbacké moo mata jëfal sang bu mag ba feete woon Mbacké Bawal Cheikh Modou Astou Mbacké moo mata jëfal déglooti leen ma dellu sulli mboot ya yamaame woon ba tax mu raw ca gaaya auzu billahi min ashaytaani rajim bismillahi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoo bi gën a tedd ci lislaam te muy assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bu ngeen gisee sunu jotaay bu tedd bi ñu toog ci kanamu kilifa gu tedd gi ngeen xam ne ndigal bàyyikoo na ci cheikh muhammadul muntaxa ibnu sëriñ bachir xalif général des mourides yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér jaar ci sëriñ Abdullahi Mbacke moom sëriñ Modou Mahmoud mi nga xam ne tey moo toog jotaayu sëriñ Mamor moom soxna jaara bu sa borom Cham waaye itam jaar ci sëriñ Baara Mbacke Beto mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ moor soxna ak si nag ci jëmm ju tedd ji nga xam ne moom ngeen di jàkkaarlool ci image yi muy sëriñ Abdullahi Mbacke xalifab sëriñ Mudasu Mbacke mbokk kon. ngeen xam ne ñoo ngi waajal bis bu tedd bis bu am solo bisub kenn ci jàmbaari Serigne Touba Xadim Rasoul bisub kenn ci jàmbaari borom Cham te muy Serigne Moudassu Mbacke ngir waajal gu nuy waajal bis boobu nag fii ci Mbacke waral na njaboot gi daje fii ci pàkkam bu tedd bi ngir def woote bis bu am solo boobu ngir def woote bi nag ñoo ngi ni toog ak njaboot gi. ñu war leen a jox kàddu bu ko defee ñu woote ko ci ndigalul sëriñ bi looloo waral dinañu njëkk jox kàddu gi ki nga xamante ni moo di sëriñ Balla Lay mi nga xam ne jawriñ la ci kër gi waaye di jawriñu mbokki layeen yépp buñ ci bàyyi incha allah dinañ jox kàddu gi sëriñ Caama Mbow moom it di jawriñ ci kër gi di jawriñu mbokki kuude yi buñ ca bàyyi ko itam incha allah dinañ jox kàddu gi soxna bintu mbake bintu sëriñ Mudaasu bu ko defee incha allah moom it mu yëkkati kàddu ci turu soxna yi moom ak soxna buri mbow bu ko defee itam buñ ca bàyyi sëriñ Abdul Ahad mbake mi nga xam ne moo amee kaddu kër gi dina yëkkati kàddoom nu soog a jox kàddu gi nag ki nga xam ne mooy jëwriñu kër gi di Baay Sëriñ mbake bu ko defee incha allah noonu la woote bi demee ñu def ko ci kanamu sang bu tedd bi di xalifa xalifab sëriñ Modaas Mbàkke sëriñ Abdullahi Mbàkke yàlla na fi yàgg loo ànd ak wér kon mbokk yi ñun ñëpp nañu maase teewlu kàddu yi nga xam ne moom lañu lim léegi te war a bàyyi ko ci mbokk yu tedd yi incha allah. asalaamaaleykum ñoo ngi siyaare mbokki taalibe fi teew yëpp ci njiital sëñ Muntaxa di ñaan suñu borom yàggal fi loolu tamay ko wér ci teg sëñ Abdullahi xalifa Maamoor Jaara borom saam suñu borom yàggal ko fi. ci leeg sëñ Baara Beto xalifa bàyyi bi sëñ Moustapha ci ñaanal suñ suñ sëriñ bu baax bi mu sëñ Abdou Mbacke mu yàgg fi loolu te wér ak ak njabootam ak mboolem waa kër gi yëpp di sant bu baax ci bis bi nga xam ne moom lañ moom lañ dëgmal muy bisab sëñ Modou Assou Mbacke ah xanaa eh, soññu sëñ bopp soññu taalibe yëpp ñu taxaw ci nañ ci daa taxawe ndax amuñ lu sëñ Modou Assou kon ko amul kenn nag tam am bisam boo xam ne bu mu fonk lool la ñu ngi soññ suñ bopp soññ taal bi yëpp ñu jàpp ci liggéey bi nañ ko daa jàppee ndax sëñ Modou Assoukar ku jar liggéeyal la ku jara fonk la ku am taxawaay bu rëy ci lislaam la ku am taxawaay bu rëy ci kër Mamor Jaar kër sëñ Mor Soxna kon bisam bu ñëwee kon ku ne war nga caa taxaw noo ca mën a taxawee rek nga taxaw ko ci bu baax loolu daanaka mooy suñu soññ ci wala mbokki taalib yi di jiital suñu mbokki daayira bi yëpp rek boobu ñu kenn waa Kuude waa Léyen mboolem ko koo xam ne nanga ci daa taxawee dañ la ci soñu xam naa jëwri yéen ñëw sax dañ too dañu li ci war a wax yëpp dañ ko jàllale kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm bu baax jërë ngeen jëf alhamdulilah bisimilah barakati Cheikh Abdoulaye Mbacke mi sëriñ Mor ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp rek tey sant yàlla bu baax jotaay bi nga xam ne moom nañu teew jotaay boo xam ne ko gis xam ne jotaay bu war a am la ndax kiñ koy wooteel kenn ku ne xam na taxawaayam ci yoon bi waaye kenn ku nekk xam na taxawaayam ci waa kër sëñ Mor Diarra muy sëñ Modasu mel ne nag ñun ñi nga xam ne ñun ñoo seq kër gi te ma sëñ leen a soññ laay yëkkat samay kàddu jëmale ci ñoom mel ni mbir boo ko moomee te mu war a dox yow yaa war a taxaw ba mu dox na war a doxee ndax su doxee na war a doxee rek daan si am nañ ci war a am. damay dégg sëriñ bi di wax lu bari du mel noonu bu nit di sàkkul lu muy sàkkul yow sàkkul ngërëm day wax ne ngërëm du maase maaseb dërëm yàlla nañ ko am soo ko amee am la nga bëgg am amaat ab dërëm pare am la nga bëgg am la nga bëgg am nag damay dégg moom sëriñ bi mu naan lu nee nga ca kon day mel defar defaru bi mooy suñu defaru baax bis mooy tax ñu baax kon kenn ku ne fa ko fëre ak fu mu mën doon. ak foo mën di nekk ñu ngi lay soññ ca fa nga nekk lépp loo ci mën rek nga def ko ngir yàlla ak sa bopp ndax duñu wax ngir yàlla sëriñ bi ndax sëriñ moom la muy am na ko ba pare ñun ñi koy de sëriñ bëgg a dimbale bala am ñu mën cee séddu kon nañ ci maase tab bi ci war a tabbee ngir ñu am ma sëriñ tubaa ñu ngi sant ñëpp di jaajëfal ñëpp te ñaan suñu borom àggal nañ ci bis ba te kenn ku ne lañ ci nësër nga man ko am mën ko ci def ba mën ci am liñ ci bëgg am barke borom Tuubaa. salaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu ngi leen di nuyu yéen mbooloo mi góor ak jigéen mag ak ndaw di tudd Cheikh Abdoulahi Mbacke man Cheikh Modou Astou Mbacke suñu bàkku baay bu tedd bi ak rakkam yu tedd yi ne ci ginnaaw bi sëñ Mbacke ak Cheikh Abdoulahat sant mboolem daayira bi te di soññ ci liggéey bi soññ suñu bopp. ak biir kër gi soxna Bintu Jang ak mboolem ñim nekkal ci biir kër gi soñña suñu bopp ak samay rakk ak ak taalibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw soñña daayira bi soxna maam buri ñoom ak soxna nday mbaw ak mboolem àllaaj bàll li ak mboolem daayirab la yéen bi ak daayirab ginnaaw raay bi ci soxna mbenn jóob bàyyiwuñu kenn bàyyiwuñu yenn bàyyiwu kenn sëti kër gi mbool njabootu kër gi tàmbalee ko ci sama bopp man taalibi bi di Baay Faal takk sama laxasaay fas yéene liggéey sëñ Moodu Béstu Mbàkke ci pàkk bu tedd bi nga xam ne doon am fi lañ ko amee moo nu liggéeyal ci sëriñ Touba liggéeyal nu ci Maamoor Jaar ba ñëwunu kenn ñëwunu kenn lu jëggaani fen dara ndax lépp a ngi fi di ñaanal nag sama rak sama mbokk mi ci sama ginnaaw ndax am na nu muy demee noo xam ne nii ak bokk jërta jaay taalibe rek a mat a jaay maa ngi sant te di leen ñaanal ak ci ginnaaw man ak taalibe rek ma ñor kon nag maa ngi soññ góor ak jigéen mag ak ndaw nan takk sunuy laxasaay te xam ne yoon wi moom ñukk ak ñaq joxe sa wërsëg joxe sa wërsëg joxe sa doole loolu rek fi ne leneen nekku fi man nag yaru fiñ ma yare taalibe rek laa xam ak joxe addiya ak liggéey ak summi say daalu doonub dongo doonub baay faal maa ngi soññ ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw foofu daayira mën a nekk ak njaboot gi ci biir kër gi sët ba ci sëtaat sunu njaboot gi ñu jural sunu bopp ak ñépp noo ngi leen di soññ ndax seetaan ñeetaane mbir moom ak gaal rekk la lu ci waaye def danañ la ko ci dencal loo ci def doo fa fekk dara wasalaam. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaar di wax ci bésab Seex Modos Mbàkke bi suñu tabaskee ba am fukki fan di wax ci ku yomba waxal muy sëñ Modos. bëggul lu may yàlla ak yonent bi ak alxuraan bëggul daray àddina mosu koo ñor mosu koo saf yàlla rekk a ko safoon ak yonent bi ak alxuraan kon nag ñu ngi wax ci moom ci bésam bi rawatina nag ñun ñi nga xam ne ñoo ko ŋànk bàyyiwuñ nag ndaw bàyyiwuñ mag bàyyiwuñ góor bàyyiwuñ jigéen képp koo xam ne yaakaar nga sëriñ tuubaa ak Mama Diarra woo nañ la ci bés bi ñun ñi ko ŋànk nag nañ gën a góor góorlu muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nañ laxasaayu luñ mënoon démb ak bërki démb nañ jéem a mën lu ko raw ci bés bi ndax bañ ko dalee def ak léegi mosuñoo arrière mosuñoo dellu gannaaw kon nag nañ xam ni bés bii ku koy liggéey ku ne yàlla dana la fay yónneent bi fay la Maamoor Soxna fay la Cheikh Modou Mbacke fay la te am na fay kon nag nañ góorgóorlu bu baax ñun ñi moom bés bi te xam ne ki ñuy liggéeyal jar naa liggéeyal ki ñu fi bàyyi man na lim doon taxaw na fi mu war a taxaw toog na toogaayam baayam Cheikh Abdou Mbacke yal na nga fi yàgg te wér yal na nga fi yàgg bàllay sa te wér maa woo dara Mbacke maa ngi woo nga war a toog tongo fi bàllay sa ñun nag tiituñu jàquñu ñu ngi ci sa gannaaw te xam ne ñun dañuy ànd ak yéen rek ba aljanna suñu aljanna leer nañu nañ kon nag ñu ngi sant ñu ngi gërëm ñu ngi ñaan yàlla bu déwénee yal nañ ko fekkee te tal ko luñ man ren bu déwénee yal nañ man lu ko raw ci daraje Rasulullah mu tedd aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulillahi rabbil alamin ala ashrafi almursalin saydina muhammadin ibni abdillah wa ala alihi wa sahaabatihi wa bi ihsaanin ila yawmi ddin mbokki jullit yi mbokki taalibe murit yépp ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ Abdullahi Mbàkke xalifa sëriñ Modou gannaaw bi mu jotee ndigal ci seex Muhammadul Muntaxa ataalallahu umra wa badanahu sun boroom yàggal ko fi te wéral ko lool te wéral yaramam mu jële ndigal ci seex Muhammadul Muntaxa xalif général de Mouride gannaaw ba it mu amaat ndigal ci sëriñ mo Abdullahi Muhammadul Mahmoud xalifab maam borom saam radiyallahu taala anhu déggoo ci it ak kilifaam sëriñ Muhammadul Amin Baara Mbakke moom seex Muhammadul Moustapha Beto. mi nga xam ne moo tooge ci waxtu wi ñuy wax ak yéen jataayub sëriñ moor soxna mbàkke radiallahu taala muy bis boo xam ne nag sëriñ bi mi ngi koy woote ci ndigalul waajuram wu tedd woowee di sëriñ moo dostu mbàkke ndax bis bi moo ko digle woon santaane ko muy ñaar fukki fan ci weeru tëbaski ren nag muy dëppook àllarba di dëppook la vingt juillet di ñaar fukki fan ci weeru tubaab ci këram gi nga xam ne fi lañu ko daan defee muy mbàkke mbusoobe ci wetu hôpital bi muy bisu ñaan nag ak bisu fàttaliku suñ kilifa gu baax googu sëriñ bi di wax ne mi ngi koy yëgal bokk yépp mboolam buntu kër yi mbokkal maam boroom saam bàyyiwul benn buntu kër la commencé ca kër sëriñ moor soxna gii ba ca kër sëriñ Abdul Xafoor mi ngi koy yëgal ñëpp kilifaam yooyee buntu kër yi moor soxna yi li tàmbalee ci kër sëriñ Muhammadul Moustapha Mbacke Beto ba ci kër sëriñ moor may bàyyiwul benn buntu kër bu dee buntu kër yi kër Sëñ Tuubaa yi bàyyiwut benn buntu kër la commencé ca kër Cheikh Mouhamadul Moustapha ba ci seex Mouhamadul Mourtada ñëpp bàyyiwut kenn ndax ki muy wooteel bis bi moo toll noonu ci yoonu murit mbokki mbusoobeem yi mu dëkkalit di waa kër sëriñ mbusoobe moom it mu ngi leen di fàttali bis bi bu baax a baax di ko fàttali axalu mbusoobe yépp kon daal sëriñ bi bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen bàyyiwut mag bàyyiwut ndaw bàyyiwut wëllëre woo xam ne koo xam ne dafa wëllërante woon ak sëriñ bi te sëriñ bi moom ku dut taalibeem it wëllërante nga moom wëllëre woo xam ne bis jot na ngeen am fu ngeen jaar foo xam ne suñ la woowee ci bisam boo amul lenn lu la téq war ngaa mën a ñëw teewe si ko soo amee am téq it foo mën a nekk nga defal ko ay dog sun boroom jote la ko ca kon daal loolu mooy ndigal li nga xam ne moom lañ doon wax ci tuuru sëriñ bi sëriñ bi it bis bi waxtu wu ne daayira bi nga xam ne mooy daayira bi ne ci kër gi muy sullamul xufraan wa ridwaan nga xam ne ñoo amee taxawaayu liggéey yi ci kër gi moo ñoom ñoo ko ànd di ko yëgle ak mboolam nag njabootu kër gi ak fu mën a nekk te bokk ci njabootu Seex Moodu Astu Mbàkke ndax daayira boobu dafa am ay bànqaas xëy na garab gi mbàcce bawal la sax waaye bànqaas yi maanaam law na ci mboolam àdduna bi bu dee mbàcce gii waa lëyeen ñoo ngi fat ñoo ngi ñoo jëwriñ jafane muy sëriñ xaadim lëy ak sëriñ balla lëy bu dee kuude ña ngay soññ alxaaji bàlla mbaw ak caama mbaw ak sëriñ caam mbàkke dimbu ñu ngi leen di soññ te di leen fàttali sëriñ moodu ndokk ak mbeen jóob mbàkke xewar sëriñ moodu astu jóob ak sëriñ moodu noxo ak xamdi jatara ñoom ñépp ñu ngi leen di fàttali bés bi kuudeg baari arambaw ak penda jóob bu dee fëye ca tuubaayit it ku nuy wax mbay faal ak wëli saw ñoom ña fa ni ñëpp ñu ngi leen di wax ñu soññ mbokk yan fa bokkal ne te fàttali leen bés bi na jege si na Cees sëriñ Góor a ak sëriñ Moodu Laam ak seen mbooloo ñoo ngi leen di fàttali bés bi dëkk bu ñuy wax yëfi sëriñ ale Jóob ak mbooloom ñoo ngi leen koy fàttali bu baax joof yoor Ibrahima Jóob ak mbooloom ñoo ngi leen koy fàttali kontoor sëriñ Moor Soxna Saw sëriñ Modou Astu Saw ak Cerno Saw ak seen mbooloo ñoom ñëpp sëriñ baa ngi leen di fàttali bis bi bu dee daayira ba nekk dakaar ma jóob mbaw ak xasan mbaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di fàttali bis bi te di leen ci gën a soññ bu baax bu dee réew mu ni wax Côte sëriñ moo sëriñ sëriñ Moodu Astu Ñang ak Mboor Jóob ak Moor Silla Mbaw ak Ibrahima Jóob sëriñ bi ne mi ngi leen di fàttali bis bi bu baax bu dee réew mu nuy wax Maroc bàyyi moo du Mbaw ak Xomar Mbaw ñoom ñu ngi leen di wax ñu soññu gaa yeen fa nekkal yépp ci li xamal leen ne bis bi jub na bu dee ca itali Xaadim Mbaw ak Jëb Jóob ñu ngi leen ko yëgal bu baax bu dee fële ca amerig ci Washington sëriñ Mamor Mbàkke moo fa nekk jëwriñu taalibe ya fa ne yépp ci njiitam ak Seex Mbeng ñoom ak ñam jiite ñépp ñoo ngi leen di fàttali bis bi di leen xamal na jege si na Kayre sëriñ Modou Kayre Mor Kayre ñoo ngi leen koy yëgal Kayre Kër sàmba Kan sëriñ Taala Kayre ak tund wa ñëpp ñoo ngi leen ko yëgal bu dee ndokk Serigne Modou ak waa kër Abdou Karim Lay ak Serigne Modou Lay ñoom ñëpp ñu ngi leen koy fàttali ware jafa Mamadou Ba ak waa këram njabootuk sëriñ Ngor Fay Fayeen waa Gabon ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax Kebe Ñang moo fa ne bu dee autorité yi nga xam ne ñoom la ñu bokkal dëkk bi te ñëpp doonoon wëllërew sëriñ bi muy préfecture bi ñu dëkkal ak commissariat de police ak meeru dëkk bi di ba ak ki mu fi wuutu di Abdou Mbacke Ndaw daana teewe bis bi daañ ci sonn kon bàyyiwun ñoo ñëpp ñu ngi leen ko yëgal xam ne bis bi daal seen bis la te it sëriñ bi seen dëkkandoo la woon te dëkkin wi rafetoon na lool kon ñoo ngi leen di bàyyiloo xel bis bi te di leen ko fàttali bu baax a baax waa Daaru Rahmaan it sëriñ bi mi ngi leen koy fàttali bu baax ndax bis bi seen bi sax ndax sëriñ seex moom ku ne xam na ne bis bi kenn dawu ko fi jiitu ñoo ngi ñaan suñ borom yokk leeram ak yërmandeem sëñ du mam fa bàyyi it noona rek la ko continuer kon sëñ bi mi ngi ko koy fàttali ak suñ jarbaar ya fa nekk yëpp sëñ xaadim ak sëñ Mbàkke ñoom ak suñ mag ju baax ja fa nekk di soxna say nga xam ne mooy suñ kilifa ñun ñëpp sëñ bi mi ngi ko koy fàttali te xam ne bis bi bisama luñ fi def moom lañ koy defal kon ak soxna Mbàkke mi nga xam ne mooy taawub sëriñ bi te nekk Tuubaa Daaru Xuddoos lépp luñ ciy def ci seen digal lañ koy defee ñoo ngi leen koy fàttali ñoom ñëpp xam ne ñoom lañ fi nekkal ñoom ñooy sëriñ bi ñu ñooy jëwriñ yi loolu rek la waaye ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo moom bis bi sëñ Abdoulahi Mbàkke mii nekkal leen fi tamate ko sëkk ñooy ñaan suñ borom yàggal ko fi te wéral ko ñu yàgg ko fee fekk te lépp lum jëf suñ borom defal ko ci tawfiix ak taysiir kon daal mel na ne sëriñ bi bàyyiwut kenn bàyyiwut ñenn képp kuy taalibe kër gi mi ngi lay soññ di ko awale ci sa jëwrin ngeen xam ne bis bi amul lu dul moom jub si na muy ñaar fukki fan ci tëbaski te moom kat nee na bis boobu rek mooy bi ko ñor ndax dafa amul lu du sëñ Moodostu te sëñ Moodostu moomu nag ku ko am ci kër sëñ Tuubaa la sëñ Abdou Lahad waxoon sooyoo bu doon ndabalu ni giir man ngaa wax ne sooyoo kon jëmm jooji bu fabee bi sàkkal ko boppam njëkk muy fiy bàyyi ko bis booba ba mu delsee dëppoog bisug ñaanam kon mel na ne mbiram moom xamoon na ko moo tax sëriñ bi nag bis boobu rek mooy bisam gannaaw bisub sëñ moor Jaara bi ñuy woote fii daal beneen bis bu gën a rëy bisu sëñ Moo Dëstu bi amu ko moom bi yooyu léppam mooy lépp njabootu kër gi it kon ñoo ngi soññu njabootu kër gi nga xam ne yit ñoo fi nekk di jigéen ñi ci soxna Bintu Mbàkke commencé ko ci moom mi doon wax ba ci soxna Bintu Jang ñoom ak ñu mboolam ñi nga xam ne soxna Bintu Jang ak njabootu doom yeeg ñëpp góor ñi ak mag ñi bàyyiwuñu kenn. sëriñ bi nee na daal bis bi feen bisa la mu ci am rek moom lañ moom lañ ci am ñun taalibe yi kon nag nanu nanu ko fonk te bàyyi ko xel bu baax a baax te xam na lépp lu ci waay dagaan ci saahir ak baatin boroom bis bi moom mën na ko kon nag mu ngi ciy soññu ñëpp di ñaan ñu yàgg koo teewe te yàgg ko fee fekk te lépp luñ ci jëf ci alquran ak xasida ak ay salaatu ala nabi sun boroom nangu ko ci ful ko te dotti ko ca rawdatu seex moo dostu mbàkke ba ak mboolam mbokk yam fa nekkal yépp ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wa aleykum salaam wa rahmatullah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki taalibe fi daje yëpp ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi ci kàddoom laay waxee ak ndigalam ñu ñëpp ay taalibe rekk lan sëriñ bi benn la bi ñu gisatu sëriñ Modou Astou ñun ñëpp dañoo jaayante ak moom moo fi nekk tey moo fi nekk suba ndigalam rek la ñuy déglu ñaan ñu ngi ñaan yàlla lu mu nu digal la ñuy def lu mu nu tere la bay bàyyi allah kon ci ndigalam la ñuy waxee noo ngi nuyu da bëkki taalibe yëpp di jiital ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalifa général des Mourides di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér. yàlla may ko kàttan may ko tal may ko euh, may ko lim bëgg a liggéeyal sëñ Tuubaa lépp mu def ko te ànd ko moom te kenn bañu ci jiitu di nuyu xalifa Mamour Jaara Mbacke muy sëriñ Abdoulahi mbakke di ko siyaar bu baax a baax a baax a baax di sakku ci moom digal bu baax a baax di ko ne kër gi kërama lépp lu ñuy def moom lañ koy defal nuyu sëriñ Baara Mbacke mi nga xam ne itam mooy xalifa sëñ Mor Soxna di sunub xalifa tey noo ngi koy siyaar bu baax a baax a baax te di ko nuyu te di ko siyaar bu baax a baax ah, daanaka wax ji daanaka tënku na li ci des mooy ndigal moo jot moo tax mënuñoo ñàkk a wax noo ngi yëgle bis bi nga xam ne bis la boo xam ne bis bu màgg ci nun la bis bu tedd ci nun la bis la boo xam ne amuñu benn bis bu toll ni moom ndax ki nu boole ci sëriñ Touba muy sëriñ Modou Astou mooy ki nga xam ne mooy sunub cër tey te doy nañu sëkk itam cër bi doy na sëkk sëkk sëkk sëkk xooluñu lenn gisuñu lenn gisatuñu leneen bim nu bim nu bim boole ci Serigne Touba daf noo yar jàngal nu tarbiyee nu won nu àddina doon doon na woon ginnaaw bàyyi noo ko mat sëkk sëkk sëkk koo xam ne itam ban ko ba mu na wanee gannaaw ba tey noo ngi topp ci gannaaw waaye lan gisoon ci Serigne Modou Astou rek loolu lañ gis ci moom kon ñoo ngi leen di xamal ne bis bii bisam bisab Serigne Modou Astou la noo ngi ciy woo taalibe yi yëpp ni ko sëñ waxee ak ñi jàll ñëpp ni ñu ko waxee bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn ñoo ngi jital ci woote bi nag ñi nga xam ne ñoo njabo ñoo ñoo njabootu sëñ Touba gépp gépp gépp ni ko sëñ Abdou Lahad waxee léegi tàmbale ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ba ci Cheikh Mouhamadou Mourtala ñoo ngi woo njabootu sëñ Mor Diarra gépp gépp bàyyiwuñ kenn kenn kenn li tàmbale ci eh, sëñ Mor Soxna ba ci sëñ Abdou Xawar Mbacke bàyyiwuñ kenn góor ak jigéen maa ak ndaw di woo taalibe yi sëñ Mor Jaara yëpp ak taalibe yi waa kër sëñ Tuubaa yi yëpp bàyyiwuñ kenn bis la boo xam ne daal bis bu màgg la bis bu tedd la bis la boo xam ne amuñu benn bis bu toll ni moom kon nag képp koo xam ne sunu wóolure nga wala ngay sunu xarit wala ngay sunu dara noo ngi lay woo ci bis bii nga xam ne amuñu lu moom te ku ñu ku ñu jàpp ku ñu jàpp te jàppale leen ci dañ la sant dañ la gërëm bis la boo xam ne nag ñu ngi ciy woo mboolem ñi nga xam ne mën nañoo jàng alxuraan ñëpp ñu nekk ci dëkk bi ñëpp nga xam ne ay sëriñ daara lañ ku mel ni sëñ Mamour Diop ak ku mel ni waa Njatara ak ku mel ni sëñ Mour Fadi Diop ak waa Sam Thialé ak ku mel ni sëñ seex mi nga xam ne mooy doomi eh, sëñ eh, sëñ Modou Ñaaw dégg nga ñoom ñëpp ak waa Mbuso bi gi nga sëñ seex Mba seex Cheikh Bousso mi ñoom ñëpp nga xam ne ay jàngalkati alxuraan lañ ñoo leen woo ci bis bi ndax bis bi sab ñaan la daa bis la boo xam ne bii lu ci waay def ci ñaan da nga noon nañ ko Ah, ci jàng alxuraan ci tawassul ci eh, jàng def ay salaatu ala nabi ci def ay lixlaas lu ci waaye def ci bis bi te defal ko defal defal ko sunu waajur yi suñu mur ëstu bi xeeb nañ loola noo ngi noo ngi woo ñëpp mbokk yëpp jullit yëpp da nga bokki taalibe yëpp di woo bokki dëkk bi yëpp bàyyiwuñ kenn di woo bokki daayira yi nga xam ne lim lañ leen fii lépp ñu gën a góorgóorlu nag bu ci gën a booloo gën a takku te xam ne sëriñ Tuubaa moom ni ko soxna Bintu waxee léegi rek dégg nga liggéeyal sëñ Tuubaa rek moo nu fi moo nu fi bàyyi te te te mooy mooy mooy li ñuy jariñ kon kenn ku ne fa nga ne maa ka nga yaakaar muy sa yaakaar tey ak ëllëg nga doxal doxale ko su diggante sëñ sëñ Tuubaa dangay fexe ba jaar ci moom ba bu ëllëgee nga mën a gis sëñ Tuubaa na nan nga ko bëggee kon nag yalla na ko yàlla defal te kii nga xam ne tey yàlla dogal na noonu mooy suñu buntu ci sëñ Tuubaa nun day an nañ yàlla baax ndax defal nañu loo xam ne te gis nañ mu def ci yoonu murid loo xam ne kenn mosu ko def waaw doy na ko fondation ba noppi kenn kenn kuñ tudd dañ ne dana am ñaari weer dana ci am ñetti weer dana ci am juróom-benn weer waaye moom la moom wax ne kaay sëkkal ma ko mu sëkk ko ci benn bis loolu doy na sëkk waaw booba liggéey nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne moo njëkk ci yoonu murid mooy liggéey bi nga xam ne moom la Sëñ Tuubaa taamoon moo ko moo ko njëkk a def gannaaw loola itam Ah, ku fi nekkal sëñ Touba la ko dàmbalee ci Cheikh Mamadou Moustapha Cheikh Mamadou Fadal sëñ Sëñ Bilaat dégg nga sëñ Abdou Khadir ba ci sëñ Saliou mii liggéey ba nga xamante ne sëñ Modou Astou moom euh, moom moom lañ jëbal sëñ sëñ sëñ sëñ Cheikh Mbacke bi sëñ Saliou nelawee sëñ sëñ Modou Astou moo njëkk a liggéeyal sëñ Saliou moo ko mujj a liggéeyal kon tàmbalee na ci doomi sëñ Touba yëpp liggéeyal leen tàmbalee ci doomi sëñ Mor Diarra yëpp liggéeyal leen liggéeyal nag jullit yëpp liggéeyal bokki taalibe yëpp ko mas a koo a fekk fi aaju joo am ak njàqare loo am boo ko waxee aaju jëlay faju bu dee njàqare day wuñu ko fi saate kon nag bis la boo xam ne ñoo ngi ciy woo ñëpp di ci di di di ñaan yàlla yàlla nañ ci yegg ci jàmm tàmbale ko ci bismillah yeggale ko ci alhamdulilah di ñaanal nag sëñ Abdou Mbacke ak sëñ Abdoulaye mi ak njabootu sëñ Mutasu gépp ak taalibe yi yàlla boo leen may nu fanu gudd may nu wér may nu tal te may nu itam nu ànd toppante te bañ a bañ a bañ a warante may nu itam ñu wóolante te te nekk benn ci dara ji sëñ Modou Astou Mbacké waaw yàlla na ko yàlla defal ci barke sëñ Modou Astou bis bis la daal boo xam ne lu ci waay sàkku da nga ko mën a am ci lu baax ah dégg nga kon nag ñoo ngi ci woo yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yàlla ci yegg ci tàmbale ko ci bismillah eh, eh, yeggale ko ci alhamdulilah jërë ngeen jëf lii rek mooy kaddu yi ci ndigal sëñ moom eh, sëñ Abdou nag laa waxee kaddu yi waaye man awma kaddu awma awma awma ndigal awma lu may wax da nga dañ may digal rek ma def luñ ma tere ma bàyyi ñaanal ma loolu ci barkeb sëñ jërëjëf mbokk yi kon woote baa ngi noonu bàyyi ko ci jëmm yu tedd yi nga xam ne ñoo doon yëkkati seen kàddu léegi sëriñ Balla lay tàmbali woon ko jaar ci sëriñ Caama Mbow maam Buri Mbow bàjjan soxna Bintu Mbacke sëriñ Abdul Ahad mi nga xam ne moo yore kàddu kër gi waaye itam ngeen dégg kàddu yu am solo yi nga xam ne jawrinu kër gi yëkkati na ko léegi muy ay sëriñ Mbàkke nu sëriñ Modou Mbàkke mbokk yi kon bis baa ngoog bisu jàmbaari sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul ji sunu jàmbaar ji nga xam ne moo jëloon léppam jëbbal ko Cheikhul Xadim ba tax taalibi yëpp jël seen lépp ñoom it jëbbal ko ko loolu la ko sëriñ bi fayee muy sëriñ Modou Mbàkke bis bi di àllarba incha allah bu nu tabaskee ba mu am fukki fan di ñaar fukkeelu fan ciw tabaski waaye itam yamoo ak ñaar fukki fan ci weeru tubaab muy weeru juillet atum 2022 nu koy defee fii nga xam ne moo di ci Mbàkke Mbusoobe ci ginnaaw hôpital bi di ñaan sunu boroom mu yóbbuñ ci dal ak jàmm ñu fekkee ko tam mën ko te tal ko te lépp lu ñu fa ñaan sunu boroom nangul ñu ko wasaare ko ci mboolem réew mi waaye mboolem pàkki jullit yi nekk ci àddina bi yëpp bu ko defee kon mbokk yi sëriñ bi nee na moo ngi sant bu baax a baax a baax daari alxuraan yëpp ci bis yi nu weesu waaye di leen soññ ci bis bi nu dëkkmal di sant bu baax ahlu xasida ci bis yi weesu waaye di leen soññ ci bis bi nu dëkkmal te lépp lu ñu fa jàng ci arafi alxuraan ak xasida ñu àddiyaal ko sëriñ Modou Astou Mbacké sëriñ bi itam di ñaan képp ku teg sa tànk ci pàkk bu tedd bii ngir fekke si bis bu tedd boobu suñu borom faj say aajo ci barkeb sëriñ Touba Xadim Rasul ci barkeb sëriñ Mamborum soxna jaara bu su borom Cham barkeb sëriñ Mor soxna waaye barkeb kan koy defal di sëriñ Modou su Mbacké wasalaamu aleykum wa rahmatullah bismillah yéen muridi Sénégal man Abdoulaye Lahat maa leen di jaal bismillah yéen muridi Sénégal man Abdoulaye Lahat maa leen di jaal sang bu mag ba féete woon Mbakke Bawal Cheikh Modou Astou Mbakke moo mata jafal sang bu mag ba féete woon Mbakke Bawal